ñii ci àllarba bi dajee nañ sa Sir Dawda ba Jawara conference centre bu nekk sa Bijilo pour waxtaanee naka projet boo xam ne tëral nañ ko si atum 2020 pour dëgëral baaxaayub lekk bi ci biir réewu Gambie bi. banxaas bi saytu wàll bi yàqote bi ci biir réew Gambie bi muy National Disaster Management Agency ñoom nag jox nañ lu toll si ñaar fukk ak ñett nit kër yi ñu samp ba pare ñii naka doon na ñoo xam ne naka mbënn mi dafa yàqoon seen dëkk waaye Sakunta wóor doomi réew yi Gambie bu yëngu nag ci wàllu théâtre moom moo gañe nag ab ndàmpa bu bàyyeekoo nag sa bitim réew kii nag mu ngi wuyoo ci Mariama Koli te moom nag gañe na medal boo xam ne nag mu ngi bayeekoo sa bitim réew ci théâtre bu mu def nag ñu tuddee ko Mehmet. mbokki yi loolu doonoon bopp xibaar yi ñu taaxirlu bu ñu dellu si ñu yaatal xibaar yi fi jot am ci bëccëgub tey bi. mbokk yi suñu xibaar bu njëkk mu ngi dem si vice président bi docteur Aïssatou dure moom jiite na kilifa yoo xam ne nag ñu ngi bàyyeekoo si jëwrin yi saytu baaxaayub lekk bi ci biir réewu Gambie bi ci àllarba bi ñi naka am nañu ndaje si Sir Dawda Kairaba conference bu nekk si Bijulum pour gëstu nag projet boo xam ne nag ñu ngi ko taxawal fas yéene koy liggéey si juróom ñeenti at projet bi nag ñu ngi ko tëral ci lu jëmee nag ci wàllu baaxaayub lekk bi te nag mbootaay bu ko dooleel mooy mbootaay yu EU bi ñi nga xam ne nag ñooy saytu wàllu yub lekk bi muy mbootaayub FAO bi ci biir réewu Gàmbi bi ñoom ñoo ko nekk di bàyyi xel ngénte baaxaayub lekk bi naka doon na mbir boo xam ne ñoom naka gisee nañ ko ne ab yokkute la bu ñëwee naka ci biir réewu Gàmbi bi te naka si jamono ji kilifa yi ñu ngi manko pour gis ne rek ñeent atu projet bii nii liggéey nañ ko ci biir réewu Gàmbi bi pour gis rek képp koo xam ne yaa ngi yeewoo ci biir réewu Gàmbi bi nga dund naka dund gu baax dund gu jëmee ci wàllu diwlin farine ak yenn lëjum yoo xam ne nag ñu ngi ko bay ci biir réewub Gambie bi surtout lu jëmee nag ci xorom suñoo defaree ci biir réewub Gambie bi si ngénte bi chairman board of director ci banxaasu food security quality agency bi muy wuyoo ci Amadou Sow moom wax na ne naka am na yaakaar ne kilifa yi si jamono ji seen i manko bi dina indi yokkute naka ci baaxaayib lekk bi mista Sow mu ne mu ngi oo askan wi pour naka ñuy bàyyi xel mbir yoo xam ne naka ñu ngi ko lekk ndax ne lekk rek nekko ne da nga lekk rek lu la neex waaye naka boo demee bay lekk na nga lekk loo xam ne rek dafa lay isil ci sa wérgu yaram bu ñu sukkandikoo ci Sow mu ne Gambia seen i banqaas bi surtout wàllu wérgu yaram bi ci lim bu ñu génnee wane nañ ne naka ci at yi ñu nekk ñu ngi am naka jëf-jëfe jomale ko naka ci wàllu baax neexaayu lekk gi aka dund goo xam ne nag askan waa koy jëfandikoo. ms Mushiibuni moom mi nga xam ne nag country representative la bu bayeekoo nag ci mbootaay FAO bi ginnaaw doon gaaral kàddoo mu ne projet boo xam ne nag taxawal nañ ko pour gëstuwaat baaxaayub lekk bi ngeen koo dëgëral ci biir réewu Gambie bi doon na mbir boo xam ne nag dañ ko fas yéene yaatal te lii nag doon na loo xam ne moom mu ngi koo rafetloo mu ne ñoom nag seen bànqaas bi taxaw nañ fas yéene lëkkaloo ak nguurub Gambie bi pour gis ne nag génnee nañ fi lekk yoo xam ne nag baaxul ci yaramu doomi aadama mu continué di wax ne réewub Gambie bi si atub tuuta 2018 bu ñu sukkandikoo ci gëstu bu ñu génnee ngee wane ne naka tuut tànk yi ak xale yoo xam ne naka amaangoñ fukki at ak juróom-ñett doon na ñoo xam ne naka ñoo di gën ak jànkuwanteel jafe-jafe yii nii te ñi naka doon na ñoo xam ne dañu war a am naka lekk gu baax lekk goo xam ne naka dafa la naa indil yokkute ci seen màggaay bi mu ne ba tey rek ci gëstu bu ñu def mu ngi waree ne jigéen ñi naka dañ leen war a bàyyi xel bàyyi xel naka lekk yoo xam ne dañ koy jëfandikoo ndax bu ñoo lekk lekk gu bon daf leen di puus naka si jàngoro ju ñu naan anemia si ngénte projet bi vice président bi muy wuyoo ci docteur Aïssatou Touré moom mu jiite kilifa yi ci place boobu naka gaaral na kàddoom ne mbiru wérgu yaram naka doon na ab jafe-jafe ci biir réewu Gambie bi mu ne surtout bu ñëwee naka si jigéen ñi ak xale yi mu ne nguurub Gambie bi si jamono ji ñoom taxaw nañ teem pour gis naka xeex nañ jafe-jafe goo xam ne naka ñu ngi koo jànkuwanteel bu ñëwee ci wàllu baaxaayu lekk gi te lii naka fas yéene nañ seen lëkkaloo ak seen yi vice président Touré mu continué di wax ne projet bi naka nañ ko yóbbu ci dëkk yu nekkee si North Bank ak Central River Region mu ne bi place yi naka doon nañ place yoo xam ne ñoom lañ war a gën a gestu mu ne bu ñu sukkandekoo ci gestu bu ñu def si atum 2013 mu ngi wane ne naka ne xale yi ak jigéen ñu biir ñi ñoo dee gën a am jafe-jafe bu ñëwee naka ci baaxaayub lekk. projet boo xam ne nag kilifa yi mànkoo nañu pour liggéey ko ci biir réew mi fas yéene nañ koo tëral nag àndale ko ak seen yoo xam ne ñu ngi ko tëral jëmale ko ci seen wàllu liggéey bi banxaas bu ñu naan food safety and quality authorities doon nañ banxaas boo xam ne nag dañ leen taxawal ñu àndale ko ak luwaa si atum 2011 pour gis nag gestu nañ baaxaayub lekk lekk boo xam ne nag askan waa ngi koy jëfandikoo muy doon lekk bi béyoo ko sa bitim réew wala nag dund goo xam ne dañ ko bay ci biir réewu Gambie bi ñu ne nag xam ne ay kilifa leen ñoo xam ne naka dañoo gestu dund goo xam ne naka askan wi dañ koy jëfandikoo te lii naka gestu goo xam ne dañ koy def dañ koy yóbbu ci néegu député bi pour ñu am ci ab nangutoo bu ñëwee nag ci projet boo xam ne nag kilifa yi mànkoo nañ pour liggéey ko ci biir réewu Gambie bi njëriñ bu ci nekk nag am nañ yaakaar ne dina indi ab yokkute nag bu ñëwee ci wàllu dund ne askan wi ak i tamit ci wàllu wér-gu-yarami askan bi yeewoo ci biir réew mi surtout nag bu ñëwee ci tuut tànk yi ak ñi nga xam ne nag ñooy jigéen ñi biir yi banxaas bu ñu naan National Disaster Management Agency mu doon banxaas bi saytu wàllu yàqute gu dee am nag ci biir réew mi ñoom nag ñoo jox lu toll si ñaar fukk ak ñett nit néeg yu ñu samp ba pare ñii nag doon na ñoo xam ne nag ñoom yàqule woon nañ ci mbënd boo xam ne nag demoon na ci dëkkub Kuntawur bi projet boo xam ne nag ñu ngi ko taxawal ñu ngi ko jaarale nag si ñaari mbir te nag mbootaay bu ñu naan biin Khalifa ñoo ko nekk di dooleel bu ñëwee ci wàllub koppar ñu jaarale ko nag ci mbootaay United Arab Emirates bi seeni embassy bu nekk sa Dakar ci ñeenti at léegi ñi nga xam ne naka ñoo yàqule woon ci mbund boo xam ne naka amoon na sa Kuntaur ñu ngi soog am ndimbal bu bayeekoo naka ci banqaas boo xam ne naka mooy saytu wàllu yàqute bi ñu lëkkaloo si ak mbootaay bu ñu naan Bin Khalifa Foundation ñii naka lu toll si ñaar fukk ak ñetti nit yoo xam ne naka ñu ngi yeewoo ci dëkkub Kuntaur bi te ñu yàqule woon ñu xam ne naka seenub loxo jotu seenub ginnaaw pour defaraat seenub néeg yi banqaas bi naka ñooñu la ñuy jàppale foofa Fofana doon programme officer bi ci banxaas bi seetu wàll bi bi ci biir réew bu Gambie bi moom mu ne ñi nga xam ne naka ñoo joxe ndimbal bi si jamono ji naka nekkuñ ci biir réew bu bi pour jox ko naka ñi nga xam ne ñooñu lañ ko defaral mu ne waaye naka am na yaakaar ne néeg bi nga xam ne naka samp nañ ko dina njëriñ naka ñi nga xam ne ñoo yàqule mu ne boo sampee néeg te fekk naka kenn dëkkut ci loolu yàq néeg la mu ne boo gisee naka néeg yoo xam ne jot nañ koo samp balaa ñu ko doon jox seenu borom xale yoo xam ne naka ñoo nekkee ci boor yooyu ñu ngi ko doon jëm xeer mu ne ñaar fukk ak ñett nit ñi nga xam ne nag ñooñu la ñu jox néeg yi ñooñu nag am amagum wërsëg pour am dimbal bu bàyyeekoo ci mbootaay bi te ñii naka yàqule nañ wan si weerub septembre atum 2017 ba mbënd mi amee naka sa kunta wóol mu ne naka bu fekkee ne ndimbal gi bàyyeekoo wutoon si bin Khalifa Foundation ñi nga xam ne naka ñoo am ci dimbal gii nii di da leen jël ay diir yu yàgg balaa ñu doon mën a sampaat seenub néeg yi Sali Jaaju ak kii moo jaabi ñoom ñëpp naka ñu ngi wane seeni mbégte ak kontaante di jaajëfal naka nguurub Gambie bi ak banqaasum ndimbal bi ci liñ leen jàppale Kéemo Jaabe mu ne mu ngi sant yàlla ci li ko indil nag ndimbal bi nii mu ne mu ngi jaajëfal mbootaay bi nguurub Gambia bi ak banxaas bi seetu wàllu bi yaaxote bi surtout nag seen executive director bi muy wuyoo ci Sana ba ci taxawu boo xam ne naka def nañ leen ko mu ne moom naka amut koppar bu takku boo xam ne naka na ko mun a sampee néeg bi nii mu ne waaye naka ñii may nañ ko ko kon naka mu ngi leen di sant di leen gërëm ci ndimbal boo xam ne naka jox nañ leen ko mu ne mu ngee jaajëfal ñëpp ñoo xam ne naka dugal nañ seen loxo ci sampub kër bi Sali Jaaju moom ci wàllam mu ne naka néeg bi rafet na torop te moom naka mu ngi sant yàlla di sant ñi nga xam ne naka ñoo ko jox néeg boobu mu ne mu ngi jaajëfal naka banxaas bi saytu wàllu yàqute bi ci biir réewu Gambie bi surtout naka seen executive director bi muy wuyoo ci Sana baan mu ne moom ci wàllu boppam munta samp kër gu mel nii mu ne bu fekkoon ne naka ndimbal bi ñëwutoon ci waxtu wii ndi ko ne wetu ren bi ci néegam bu yàgg bi foofu naka lam koy def te képp koo xam ne rek gis nga néegam googu di nga xam ne naka fii nekkul place bu baax boo xam ne naka waaye dina fi mun a tëdd mu ne néeg bi baaxul waaye naka mu ngi sant ñi nga xam ne naka ñoo ko jàppale si kër gu baax goo xam ne naka na fa mun a tëral boppam gi. projet boo xam ne naka Bin Foundation bi ñu ngi ko nar si dëkk Kunta Wuur bi ñu ngi ko nar a tag naka si ñaari mbir. te lii yëpp naka dafa tuppe ci pour jàppale leen ngir mbënd bi naka bu mu leen mun a yàqal si projet bi ñu ngi leen fas yéene jàppale si ñaari briques yoo xam ne nag dañ koy defaraat pour gis ne nag ndox mi dina mun a jàll ci dëkk bi te fekk du fa def benn yàqute biin Khalifa Foundation bi ñëw nag ci ndimbal boo xam ne nag ñu ngi ko jaarale si United Arab Emirates Embassy bu nekk sa Dakar nangutoo nañ ci koppar gu toll si benn million bu ñu nar a dugal nag si projet bi ñu ne koppar gi nag dañ si fas yéene samp lu toll si ñeen fukki kër waaye nag banxaas bi seeti wàllu yàqute bi ñoo leen dig ne mun ngeen a def yenn kër waaye tamit leneen ci koppar gi mun ngeen a defar naka yenn njuntuwaay yoo xam ne naka mooy mun a aar mbënn mi pour bu mu duggaat naka ci dëkk bi mu fay def ab yàqute ginnaaw bi ñu doon wax naka lu jëmee ci dëkkub Kunta Wuruñ ñu ne si jamono ji naka lu ñu soxla mooy samp fa ab mbir boo xam ne naka moo leen di mun a aar pour mbënd bi naka bu mu dugg ci seen kër yi di fay yàq banqaas bi seetu wàllu bi yàqute bi muy National Disaster Management Agency seeni executive director bi moom wax ne ne koppar gu toll ci benn million ci xaalis US dollars boobu naka la ñu nangutoo waaye naka lu toll si juróom benn téeméer ak juróom fukki junne si xaalis US dollars yooyu la jot a jëfandikoo ci koppar bi mu ne yeextaande boo xam ne naka mu ngi ci seen wàllu liggéey waa dëkk bi naka ñoo leen ko yóbbee ndax naka pak boo xam ne boobu la ñu nar a mbir boo xam ne naka mooy aar waa dëkk bi pour mbënd mi mu dugg ci seen dëkk bi ñu moom pàkk boobu naka ñoo nekk di weerante ci seen biir looloo tax naka ñoom ñu ngi xaaraangum daxa ba mu continuer di wax ne naka si jamono ji ñoom kilifa yi neen ñu ngi waxtaane pour gis ne naka jot nañ ci pàkk boobu mu ne vice président bi si boppam yeggoon na ci boor yooyu pour waxtaan ak ñoom ñaar fukki nit ak ñett yoo xam ne naka ñoo am dimbalu bayeekoo ci biin Khalifa Foundation bi doone nañ ñoo xam ne naka yàqule woon nañ ci mbëdd boo xam ne naka moo wàccoon ci seen dëkk bi te si jamono ji naka am na si ñu bari ñoo xam ne nekkuñ naka ci néeg yu garanti te naka seenub néeg yi yaakaaruñ ne naka dina jeexal nawet bi waaye naka ci ndimbal boo xam ne naka mu ngi bàyyee ko ci mbootaay bi ak yeneen mbootaay yoo xam ne naka ñu ngi taxaw pour fas yéene jàppale leen ñu fas yéene see lëkkaloo ak banxaas bi seetu wàllu bi yàqute bi am nañ yaakaar ne naka dina leen wàññeel jafe-jafe yoo xam ne naka dëkk boobee dañ ko de dee bu buñ ñëwee naka ci nawet bi mbokk yi ba tey ci xibaar yi Mariama Koli doon doomi réewi Gambia moom moo gañe nag kado bu bayeekoo sa bitim réew kado gi nag ñu ngi ko ko jox jubale ko nag ci liggéey boo xam ne mu ko nekk di def bu ñëwee nag ci wàllub théâtre ko li moom mi nga xam ne nag moo gañee kado gi jël na kado gi nag tuddee ko soxnaam jiitub réew mi muy First Lady bi mu tuddee ko tamit ki nga xam ne nag mu ŋànk Ebujan théâtre théâtre nag doon na mbir boo xam ne nag ndaw yoo xam ne dañ ko mën dañ ci dee dugal seen loxo pour wane nag mbir yoo xam ne askan wi ñu ngi ko dund wane tamit seen i man-man jëmale ko nag ci wàllub théâtre ko Coly moom yokkute boo xam ne nag am na ko ci wàllub théâtre doon na mbir boo xam ne nag yokkute la ci moom te nag kadam googu mu ngi ko ngénte ci samedi bi si Ebujan théâtre a du Diouf doonoon ministre bu ñu dénk wàllub gan yi ak aada ak cosaan bi mu doon naka maam si Mariama bii nii ginnaaw doon gaaral kàddoom mu ne Mariama naka doon na xale boo xam ne xale boo fas jom la te naka Mariama sëtam la mu continué di wax ni Mariama ca dëkku Birkaama bii la yaroo te naka foofu la màggee mu ne Mariama doon na xale boo xam ne naka daf di ruus waxam bariwul tamit nit la koo xam ne naka dafa am yar Hassoum Ceesay doon directeur ci banxaasum National Centre for Arts and Culture ak Ousmane Jaaju doon naka movie producer ginnaaw ba ñu doon gaaral seenub kàddu jaajëfal nañ Mariama ci yokkute boo xam ne naka am na ko ci seenub kàddu ñu ne ñoom naka ñu ngi wane seeni mbégte ak kontaante ci ngañ ma boo xam ne naka Mariama am na ko ci wàllub liggéeyam yaay ci Mariama mi wuyoo ci Adama Diaw moom it garal na kàddoom ci bés bi di rafetlu tamit di wane mbégteem ak kontaanteem ci yokkute boo xam ne naka doomam ji am na ko mu ne moom naka kontaan na ci doomam ji te naka mu ngi ndamoo doomam ji mu ne gis na naka lii mbir la boo xam ne ñëpp ko bokk ndax Gambie yëpp a génn naka di ko màggal ak moom mu ne lii mënutoon a am bu fekkee ne ñi nga xam ne naka ñooñu la nekk di liggéeyal jàppale wuñ ko mu ne kon naka ngañ maa bi doomi réewi Gambie yëpp a ko moom Fatoumatta Bah Barrow doon soxnaam njiitu réew mi ginnaaw doon gaaral kàddoom ci ndaje bi mu ne moom am na mbégte ak kontante pour bokk si ñuy màggal mbir yu mel nii mu continué di wax ne award bi nga xam ne naka Mariama gagné na ko doon na naka lu rëy bu ñëwee naka ci réewu Gambie bi mu continué tamit di wax ne moom foogutoon ne doomi réewi Gambie am nañ métier bu leen di war a may naka ñu war a gagné kado boo xam ne naka dafay bàyyeekoo si Hollywood mu ne Hollywood naka doon na mbir bu rëy bu ñëwee naka ci àddina si Mariama li moom mu gañe kado bu bayeekoo nag sa bitim réew ginnaaw doon gaaral cadeau mu ne nag mu ngi jaajëfal àndandoo mi mbokka mi ak ñi nga xam ne nag ñoo ko jàppale ci at yi ñu passé mu continué di wax ne bu ñëwee ci wàllu bitim réew si atum 2013 tànnoon nañ ko nag pour mu bokk si ñoo xam ne nag ñooñu ñoo waroon a gañe ab kadoon mu ne waaye nag si jamono yooyu moom toon ko lu dëgër ndax nag foogoon na ne du yegg ci foofu mu ne waaye nag mbëggeele nit ñi ak taxawaay yoo xam ne nag loolu la ko askan bi defal ak it liggéey bu rafet boo xam ne moom def na ko ci wàllam loolu koy yeggal fu mu yegg nii mu ne mu ngi oo nguurub Gambie bi pour ñu bàyyi xel lu ñëwee naka ci wàllub théâtre tamit ñuy dugal koppar pour dooleel naka ñi nga xam ne ñoo nekku di yëngu ci wàllub théâtre guddi goo xam ne naka boobu la ko lii jagleel boppam ànd ceek soppe yi ak ànd jàmm yi doon na guddi goo xam ne naka ñu fa nekkoon yëpp màggal nañ kook moom mbokkam yi ñi nga xam ne naka ñooñu la nekk di liggéeyal ci wàllu théâtre bi ñoom ñëpp naka yegg nañ fa kilifa yoo xam ne naka ñu ngi bayeekoo ci bànqaasu nguur gi ñëpp yegg nañ fa pour naka màggal bés bu am solo bi nii boo xam ne naka ab doomi réew bi Gambia moo ko gàññe naka sa bitim réew muy wuyoo ci Mariama Coly mbokk yi suñu xibaar mujj mu ngi dem nag ci mbootaay bu ñu naan Tek M ñoom ñoo dugal koppar gu toll si benn tom bu juróomi million ci xaalis yi dalasi ñu jëndee ko nag ay textbook yoo xam ne nag dañ koy tasaare ci ñoo xam ne nag ñoo nekk si njàngum kaw bi ak njàngum digg bi pour ñu jàppale leen naka lu jëmee ci seen wàllum njàng mi mbootaay bi di Tek M ñoom nag ñoo dee faral di oote nag ndaje bu ñu naan National Spelling Bee Competition. mbootaay bi seen i textbook yoo xam ne nag jënd nañ ko dinañ ko jox nag xale yoo xam ne ñoo nekk si njàngum kaw bi njàngum digg bi ak ñoo xam ne nag ñoo nekk si Gambia collège bu ñu naan annexe mu nekk sa bassin jéego bi nag ñu jël ko pour gis nag dooleel nañ leen ci wàllum njàng mi tamit jàppale xale yi nag ay bug yoo xam ne nañ ko mën a jëfandikoo ginnaaw ba ñu jëlee nag ndimbal bi faatu Sy doon regional director si region 6 moom wax ne naka lii ab yokkute la si seen wàllub library bi ndax naka lu am solo la ndax xale nañ mën a di def ay gestu jëmale ko naka ci seen wàllub njàng mi faatu si mu continuer di wax ni jàng naka say book dafa doon biir bu am solo te naka pour gis ne xale yi am nañ njàng bu baax dañu war a am naka ay bug yoo xam ne dañ koy briid di ko mën a jëfandikoo ci seen wàllum njàng mi mu continuer naka di jaajëfal mbootaay bi ci taxawaay bu rafet boo xam ne naka jël nañ ko coordinateur si mbootaay yëpp tek m bi ginnaaw doon gaaral kàddu mu ne njàng bu baax nuñ koy mën a amee rek mooy ñu dooleel aada geeg cosaan bi jàppale xale yi naka ci bug yoo xam ne dañ koy mën a jëfandikoo si seen wàllum njàng mi mu ne moom am na yaakaar ne ndimbal goo xam ne naka mu ngi bàyyeekoo ci seen mbootaay bi dina yokk naka ak wàllum njàng mi gën koo dëgëral ci biir réewu Gambie bi mën a lii dina dëgëral mbirub aada gi aada goo xam ne nag mu ngi jëmee ci wàllum njàng mi muy xale saa yu nekk rek ñuy gestu seeni buggi di ko jàng nag pour xam lu ci nekk mën a xam naka lu ñoo jàng governor bu URR muy wuyoo ci Samba Ba moom i gaaral na nag kàddoom mu ne texte buggi naka na jàppale xale ci seen wàllum njàng mi bu ñu sukkandikoo ci ba mën ne mbenn mbir rek mën a yóbbu jàng ci kanam mooy ne naka xale yi ñuy study seeni buggi mu ne bëgg yoo xam ne nag jox nañ leen ko soxla wut soxlawut soxla wut internet te foo nekk rek mun nga ko fay yóbbuwaale pour jàng ko. Moussa Emba doon acting vice principal bi si buntu jàngekaay bu ñu naan Kobakunda School mu nekk ci buntu jàngekaay boo xam ne naka ñoom it am nañ ci ndimbal bi nii moom jaajëfal na mbootaay bi mu continué di wax ne am na mbégte ak kontaante pour am naka ndimbal bu mel nii ndax lii naka dina yokkal xale seen wàllum njàng mi. ndimbal bi ma mu bàyyeekoo nag si njaboot yoo xam ne ñoo nekk sa dëkkub USA bi jaar na nag si Regional Education Director two ak Central Bank bu Gambia ñii ñëpp nag lëkkaloo nañ pour gis nag bug yii nii bàyyeekoo na sa bitim réew yegg si si biir réew bu Gambie bi pour yegg naka si ñi nga xam ne ñooñu lañ koy jox. mbokk yi xibaar yi lañ fi amoon ci bëccëgu tey bi yaatale ngeen di si doon ànd ak li Koli di la jaajëfal ci ànd bi di ñaan yàlla mu mel ñu ñeendoog jàmm jërë ngeen jëf ci ànd bi wasalaam